mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi war a jël tey fanweereelu bunt ak benn ci sunu téere bi di risaala bu ibnu abi zayd alqayrawani muy baabun fi l aymaani wannuzur dimanche bi passé ñi ngi woon ci wàllu jihaad ba yegg si fi ñuy séddalee lañ gañe ci jihaad ya ak la ca aju comme loolu moom jàpp nañ ne nekkuñu ci jamonoy jihaad mënees na ko jëlal ab idda baba yàlla moo xam su ko defee ñu ubbi fanweereelu bunt bi ak benn muy la nga xam ne mooy chapitre 31 bi ca mooy baabun fil aymaani wa nuzur su dee yow mi yor samaru daani bi yaa ngi ci 421 na am ala kulli xaal mbokk jullit comme niñ leen ko waxee bunt bi ñu génn mooy buntu jihaad bokk na luñ cay fàttali rekk mooy lam tëje muy ar ribaat ribaat mooy ña nga xam ne dañoo taxaw ngiri di garde bala ñoo bett dëkkub lislaam bala ñoo bett dëkkub lislaam loolu it muy wane ne ndaw ñooñu nga xam ne dañoo nekk ay militaire nekk ci frontières yi ak ci biir réew mi nga xam ne seen liggéey mooy aar réew mi loolu ngaluwaay la ñuy sellal seeni yéene ca loolu ñu def ko ak jaamu yàlla ca it ñuy bàyyi xel ni discipline militaire discipline diine moo ko jiitu lépp loo xam ne nii armée ma ngi koy tëral ci yow ca loolee safaanoo ak la yàlla tëral ngalawaay bu ca topp waa armée boobee ñu ngi noonu lam tëje it bokk na ci yow ndawal jullit nga xam ne amoo droit di dem jihaad ca say way jur joxu ñu la digal mu lay jàngalit place way jur ci doomu aadama bi képp koy dem jihad da nga majeur waaye jihad boobu bu dul farata ci yow da ngay gis ne toog ci say waajur dab dab seen ngërëm loolu moo ko gën benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko maa ngi nii bëgg a bokk ci armée l'islam waaye ba ma fay jóge day maa ngi bàyyi samay waajur ñuy jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dellul nga fexe ba reetaan loo leen comme na nga leen jooyloo loolu kon lenn rek moo ci génn mooy jihaad boo xam ne dafa nekk farata ci yow ca mooy ñu attaqué dëkk bi loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax kala tere nga dem jihaad ci lu bari ci ay tukki ak yu deme noonu it way jur yi bu dee ne doon nañ ñu xam doon ñoo xam ne yàlla rek a tax ñuy waxit buñ la ca teree danga caa war a bàyyi kon incha allah dañuy doyloo loolu ci bunt boobu ñu jël suñu buntu bu bees bi ñu dal tey kon day wax baabun fil aymaani wan nuzur bunte ngi nii ci waat yi ñuy waatante ak nisër yi ñuy nisërante an nazr moom mooy nga wax ci sa làmmiñ yàlla day soo ma defalee nangam man it danaa la defal nangam mu ne wa man kaana xaalifan kon mu commencé ca waat ya wa man kaana xaalifan képp ku nekk di waat fal yaxlif billah ngalla way na waati ci yàlla aw li yasmut walla boog mu noppi wa yuaddabu man xalafa bi talaaq des na punir te mooy teg la nga xam ne mooy daanu ci képp koo xam ne day waate ay giñ koo xam ne day waate ay fase aw ataaqin wala muy waatee day goreel ay jaamam wa yalzamuhu ca lool it day lënkoo ak moom bu ca waatee fokk mu def ko wala suniya wax ja ngay wax in insha allah mooy suniya wala kafaara kafaara it du am illa fi lyamin billah lu dul la nga xam ne danga koo waate woon ci turu yàlla azza wa jalla moom mu tedd ca màgg aw bi cheyin min asmaihi wa sifatihi wala boog lenn ci ay turam ak melokaanam wa man istasna koo xam ne ba muy waat wax ne insha allah fala kafarata alayhi ku mel noonu kafaara waratu ko ida qasada al istisnaa su dee kay da caa jublu ca mooy lii maa ngi ci jublu bu soobee yàlla wa qaala insha allah mu wax insha allah wa wassalaha bi yaminihi daa di koy lënkale ak waat gam waat qabla an yasmuta avant muy noppi wa illa bu deful lool nag lam yanfa'uhu zalik lool du ko jëriñ mi ngi noonu mbokk kon bunt bi mooy buntu waat lan muy jur waat mooy bokk na ca ngay wax loo xam ni ña ngay waxal bëgg nga ñu gëm ko nga daldi indi turu yàlla su ko defee loolee ñoom dañ lay daldi gëm ci loolu yewit turu yàlla ba ngay jëfandikoo day tax ba doo wax lu dul dëgg la nga xam ne dañ koo tuddee al aymaan mul yamin bokkoon na ci aada yu tasaaroo ci kaw suuf arab yi daan ko def soo demoon tey ca daral ga ba tey gis teefenke yi di ko def mooy suñu waxee ba juboo ku nekk daal di jël sa loxo teg sa loxo sa ndeyjoor teg sa ndeyjooru moroom mooy yemin moo tax ñu tudde ko al aymaan mooy waat yooyee or mu indi loo xam ne xadiis la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi alayhi salaam moo ne man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut kenn ci yéen bu demee bay waat na waate ci yàlla wala mu noppi ndax leneen loo waate ci du yàlla rek loolee bàkkaar la luy jural waatal ci yàlla wala nga noppi amoon na ay aada yoo xam ni tasaaroo na ci àdduna bi ci arab yi ak sunu ñun ñëpp koo xam ne ni danaan lii de bu ma ko naree su ma ko naree def fase naa sama jabar sama jabar tas na wala su dee defuma ko goreel naa sama jam diw mu ne waat yooyu nga xam ne nit ki da koy waat ci waatewul ci yàlla ku mel noonu wareef la ci ka yor nguur ga ca jamono jooju mu daal di koy teg daan imma ci duma ko wala laaj ko xaalis bu muy war a fay wala wax ko wax ju dëgër ci boppam lu waral loolu yonent bi alayhi salaam dane képp ko waat ci leneen lu dul yàlla ma ngay bokkaale lii it mbokk da lay boo ko jàngee dana la yéem lool li xew suñu société yi ñun dem nañ ba mujj waat ci yàlla nit ñi jàpp nañ ne ku ko wax moom da ngay caaxaan rek waaye bala ngaa waat dëgg da ngay waat ci turu ka nga xamee ni nii moom la ñuy màggal ba am na koo xame ni nii boo ko waataloon juróom ñaar fukki yoon billahi wallahi tallahi nga waxoon ko benn maa ngi waat ci cheikh diw wala ci sëriñ diw loolu lay gën a gëm loolu lay gën a màggal loolu nag mbokk bu fi yarub lislaam nekkoon képp koy waat ca waatoo ci yàlla dañ la war a duma nga noonu mu ne nag ki nga xam ne dafay waat ne lii day su ma ko defee sama jabar tas na su ma ko defee goral naa sama jaam bis bu ko defee sëyam tas na bis bu ko defee jaam ba gore na moo tax mu ne wa yalzamuhu loolu day lënkoog moom mu ne la nga xamee ne nii di waat waat googee nga ne insha allah masalan man day dina nisër naa mooy waat naa ci yàlla ne ah danaa def nangam waaye nag nga boole ci insha allah ki koy lislaam may mooy ki waat ci yàlla su dee da ngaa waat ci yàlla nga ne insha allah loolee nga waat boo ko defulit kafaara du la ca war bu dee ne kay turu yàlla nga indi wala melokaanu yàlla bokk na turu yàlla yi mooy ni ngeen ko xam mooy allah ak turu ya ko méngool bokk na ci ay melokaanam lu ëppoon li yonent bi alayhi salaam doon waate mooy wallazi nafsi bi yadi maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom mi ngi noonu allah wallahi wa muqallibal qulub bokkoon na it lu bëri lu mu daan waate maa ngi waat ci kiy wëlbati xol yi te kooku du kenn ku dul yàlla jalla waala kon julit mën nga wax billahi wallahi wa tallahi mi ngi noonu loolu it moo tax ba julit mën naa waat ci alquran julit mën naa waat ci alquran ndax alquran melokaanu yàlla di di kaddug yàlla goo xam ne da ko wax mu safaanoog waat ci yonent yàlla wala waat ci kaaba gi wala waat ci jibril yooyu yëpp mbokk dafa xaram yooyu ay mbindaafon la amma bu dee jëmmi alquran loolee wàcca dañuy gis ne ah loolu ci melokaanu yàlla yi la jalla waala bokk na ci li mu wax mu ne bu dee ne kon da ngaa waat nga ne insha allah loolee boo ko deful kafaara du la war waaye nag day fekk da nga koo lënkale bu weer wi dee day boo ñëwee billahi danaa la jox danaa la fay insha allah danaa la fay bu dee ne da nga koo lënkale loolee bu ngànt amee it kafaara du la ca war amma boo ko lënkalewul masalan wax ak waaj ne ko danaa def nangam waat ca ba ngeen teqali ko ngay doog a wax insha allah insha allah boobu du la jëriñ boo ko deful fokk da ngay def la nga xamee ne ni moom mooy kafaara loolu kon mbokk dañuy gis ne mooy ah la jëkk jiitu ci bunt boobee donte ne lañ cay jëkk a waxit mbokk waat lu rëy la jullit du ko def lu dul ci lu mënta ñàkk jullit war naa moytu cere ji saful laalo nga waat lu ne nga waat lu ne nga waat déedéet doo waat lu dul ci loo xam ne munte ñàkk suñu borom mu ne wala tutee kulla xalaaf bépp wataat kon mi ngi noonu suñ jëlee bind ñaareel bi mu ne wal aymaanu billahi arbaa waat ya ngay waat ci yàlla ñeent la fa yaminaani tukaffaraan ñaari waat yoo xam ne dañ koy kaffaara wa huwa an yaxlifa billahi ca mooy mu waat ci yàlla ne in faaltu su ma defee aw yaxlifa la yaf la la yafalanna wala mu waat ni lii dinaa ko def wa yaminaani laa tukaffaraan ak ñaari waat yoo xam ne kenn du ko kaffaara ihdaahuma lahwul yamin ba jëkk mooy la nga xam ne ay puukare rek la ci ah la nga xam ne mooy ay géñ ñaareel ba mi ngi noonu lahul yamin wa huwa an yaxlifa ala cheyin ca mooy ngay waat ci dara yazunnuhu kazalik nga jàpp ne lool la fi yaqinihi ca la nga xam ne da caa am kóolute ne lii la summa yatabayanu lahu xilaafuhu gannaa ba mu leer ci moom contraire u lam foogoon ku mel noonu day fala kafarata alayhi kooku day kafaara waru ko wala isma ca bàkkaar waru ko wal uxra ñaareel ba alxaalifu mutaammidan lil kazib ka nga xam ne day waat tey ko di fen aw shaakan wala muy sikk sàkk ca la muy waat fa huwa ismun aw fa huwa aasimun kooku day aji def bakkaar la wala tukaffaru zalika alkaffara kenn du fare loolu ci la nga xam ne mooy kaffaara wal yatub min zalika dafa war a tuub ci loolu ila allahi subhanahu wa taala jëm ci yàlla mi sell ca kawe mi ngi noonu mbokk day wax fii ni nit ki ci li muy waat am na ñeenti façon waat mu am ca ñaar yoo xam ni soo ko waatee kenn du ko kaffaara mi ngi noonu ca mooy ñaar yi nga xam ne boog dañ koy kaffaara moom la jëkke ñaar yi ñuy kaffaara la jëkke benn bi mooy waa ji dafa waat ne def naa nangam mooy su ma defee nangam day ah daa di waat ci yàlla masalan du ma def nangam waa ji ndax da nga dem mu ne billahi du ma dem billahi du ma dem kooku waat na billahi du ma dem kon bis bu demee dafa war a kafaara contraire bi mu ne billahi dinaa dem kooku bu demul dafa war a kafaara kon lépp loo waat ne du ma ko def su boo ko defee da ngay kafaara lépp loo waat ne dinaa ko def soo ko defee da ngay kafaara mooy ñaar yu jëkk yi amma ñaar yi ci des mooy li ñuy tudde lahul hadis doonte ne borom téere bi benn façon la ci indi te mooy waaji waat ci loo xam ni dëgg la ci moom ndekete kat njuumte moo ca nekk mi ngi noonu tey jii waa ji mi ngi fi jóge am fu mu dem am ku mu dajeel na ko waaw ana Cheikh Ousmane mu ne Cheikh Ousmane mi ngi ca jàkka ja ah est-ce que wóor na la billahi Cheikh Ousmane ma nga jàkka ndekete moom daay génn rek Cheikh Ousmane génn waa ji ñëw ci jàkk ji kenn gisu ko Cheikh Ousmane xam nga kooku wax nañ li mu waat amul mais moom bi mu koy waat mi ngi ko waat ci yaqin mi ngi noonu mi ngi ko waat ci yaqin te mooy lépp loo xam ne yow bi nga koy waat da ngaa gëm ne li nga wax li ngay waat muy dëgg bis boo demee ñu fekk ne amul it loolee kenn du ko kafaara donte ne bokk na lu ñu tuddee it lahul hadis na ko yaay Aysa firé mooy li nit ñi miin seen làmmiñ billahi nangam wallahi nangam fekk ni yow jublu woo ci waat mi ngi noonu fekk jublu woo ci waat loolu dafa taxoon ci làmmiñu arab yi kon loolu kenn du ko kafaara amma la nga jublu moom dañ koy kafaara mi ngi noonu ñaareelu waat bi nga xam ne kenn du ko kafaara ci ni ko borom téere bi jàngalee bokk moom mooy waa ji waat fekk day fen waat ci yàlla fekk day fen masalan ñu ne la yow comme yem nañ mbokk ouvrier yi waaye yow ana lal ba pare na nga ne waaw billahi lal ba pare na pour subaan naa ko indi fekk commencé gu ko sax yaa ngi dégg li tax ma jox ko ci exemple dafa am benn waaye bu ma ko mas a def yàlla dogal na tey mi ngi laaxir yàlla na ko yàlla yërëm yaa ngi dégg mi ngi noonu waat fekk ne da ngay xam nga ne da ngay fet wala nga waat fekk ne yow da ngay sikki sàkk mbokk turu yàlla kenn du ko waati lu dul la wóor nga noonu sikk sàkk kenn du ci waat ci yàlla loolee la ñuy tuddee yaminul xamuus mooy borom xam-xam dañ ne mooy waat bi tabbal nit ki safara ci bakkaar yi gën a garaaw bokk na ci bakkaar yi gën a garaaw bokk na ci ñu ngi noonu mooy xawlu zuur waat fekk da ngay fen mi ngi noonu léegi nag moom ci borom téere bi lim jàngale ci loolu it muy mazhab malik dañ ne ko mel noonu dara waru ko ko mel noonu dara lu muy def waru ko lan moo ko war kay mooy tuub tuub gu sell ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ndax bakkaar ba mu def garaaw na garaaw goo xam ne bu leeloon téeméeri miskin goreel téeméeri jaamit mun ta far bakkaar bi léegi kay lam dese mooy toroxlu tuub ci yàlla yëg gravité bakkaar bi mu def doogu ne dootu ko defati mukk lii rek moo ko war amma boo demoon ci yeneen borom xam-xam lu mel ne mazhab Shafii ñoom dañ naan même bu dee day fen dana kafaara kafaare bi yàlla wax doogu tuub ak tuub ndax suñu borom yàlla mu ne loolu mooy kafaaratu aymaanikum na doon day fenam wax ne dëgg fokk mu def kafaare bi yàlla wax ba pare dooga nag tuub ak tuub mi ngi noonu waaye ala kulli xaal mbokk jurit loolu ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel ci jàngal ko njaboot gi waat indi turu yàlla seedaloo yàlla li ngay wax ci wóor ni la da ngay fen loolu mbokk ci bakkaar yi gën a garaaw la mbokk yéen ñëpp yéen a seede ne doo toog fi lu mat 15 jours lu dul benn waaye dina taxaw fi billaay walaay taalaay ñetti fan a ngi ci tàkkul sama kër ci yéen ñëpp xam ngeen day fen am déet mi nga noonu ala kulli xaal loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee ni ci kafaare bi ba tey mu ne bu dee dañuy jël beneen bind na am wala bokk balaa gaa yi question yi di réer ci biir est-ce que mbokk yi amuñu woon question boo xam ne dafa aju ci liñ jot a jànge nii bala ñoo jël beneen bind ah naam bismillah waaw ala kulli xaal waat mooy géñ waat mooy géñ mi ngi noonu ñi dañuy wax waat ñi di wax géñ mais benn la rek mooy la nga xam ne mooy alyamin mooy nga waat léegi nag ndax nit ki su dee ne dafa la waatal ci yàlla danga koo war a gëm mbokk julit bi nga xam ne ab julit la xamaloo ko dara ku mel noonu bu la waatalee ci yàlla danga koo war a gëmal loolu mu la waatal Moustapha noonu nag jullit boo xam ne nii yow xam nga ak njum la ngam wóoluwuloo ko ko mel noonu du ne da nga koy gëmal ci loolu ala kulli xaal waat googu lam doon jëriñ mooy diggante ñaari jullit ñi ngi koy siq ak sikk sàkk bañ a am suñu diggante waa ji indi turu yàlla moo tax ñu koy gëm kon képp koo xam ne xamuloo ko dara muy sa mbokkum jullit mu ñëw wax la waatal la waat googu da nga ko war a gëm am maanaam képp koo xam ne moom ay xaalam am nga ca loo xam ne ni loo ca jot a xam waat yim lay waatal lu tax nga gëme ko ci loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaw waaw waaw waaw jazakallahu xayran jazakallahu xayran waaw noonu la jazakallahu xayran waaw noonu noonu noonu la waaw waaw waaw waaw waaw waaw yàlla ala kulli xaal mbokk waat mooy seedeloo mooy maa ngi seedeloo ci ki may waat ci moom ni lii may wax lu am la wala lii may wax lu ma nar a def la ndax kooku am na ku ko am keneen ku dul yàlla déedéet kan moo xam xëy bu ku dul yàlla kon loolu keneen koo waate ca du yàlla rek yaa ngi koy jox place sa boroom naam bismillah mbokk bi waaleykum salaam waaw kafaar moom la ñu la jàng ci kanam insha allah waaw waaw bismillah waaw ki nga xam ne dafay waat ci kumpa wax na ne ne ki waat léegi ci sikki sàkk di jàng ngeen ko de ki waat ci fen wala mu waat ci sikki sàkk sax def na kabair ci kabaar yi gën a rëy waaw ka nekk barzaq digganteem ak boroomam la fa nekk ndoolu ndax doomu aadama mën na ko atte kon loolee mbokk kooku moo wax na lu gën a garaaw téeméeri yoon ci liñ doon jàng def allah xëy mbir yàlla la yàlla moo moom ay jaamam in yasha yuazibukum wa in yasha yarhamukum ku ko neex lay yërëm ku ko neex lay mbugal kon nga taxaw ak nit ki lu mu liggéeyal yàlla yàlla lu sa liggéey rafet rafet tax nga dogg ne mi ngi aljanna waat ci loolee moom mbir la boo xam ne suñuy aada la waaye wallahi tegul fenn kilifa gu mag faatu na Sénégal yàlla nattoo ma ma dégg lañ ko doon wax ca moom am ku bu ñu waxee ba daaneel ne sëñ diw yàlla na ko yàlla xare àjjana benn kilifa gu mag bu nekkoon ca place ba daal di ñëw jël micro bi ne maa ngi fiy dégg loo xam ne bëggatuma koo dégg sëñ diw yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana déedéet sëñ diw mi ngi àjjana laa wax gaa yi ànd yuuxoondoo ak sëñ diw ak ku ko loolu mbokk suñuy wax la waaye daal mbiri àllaaxira képp ku cay waat di ca dogu kookee mi ngi ci mbug wa musiba bu rëy bal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg na nee na day benn waay ngi ni gis mbokk julitam bu sàggan mu ne billahi diw yàlla du ko jéggal mukk suñu borom ne ah ana kan mooy kawe kawelu ci samay dogal diw yàlla du ko jéggal moom jéggal naa ko ca yow alak maasale naa lépp loo nar a def boo dee yow safara nga jëm loolu yeneen bi moo ñu ko moo ñu ko nettali ala kulli xaal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam ala kulli xaal kon ñu continue ah naam waaw waaw mais loolu mooy yeminul bi ñuy wax rek mooy waat na ci yàlla léegi ba dat ba ñëwee joxu la ñaar mu mën a am bim lay waatal ci yàlla moom dogu woon ne ne ni bu dat ba jiwee dana la fay ku mel noonu bu dat ba jotee ca fayu la dana ko war kafaara bu mu def ca teewul bor bi moom du ko teggeeku amma nag bu dee ba mu lay lef si moom xamoon ne ne ne dat bii mu la wax bu jotee du la ca fay su boobaa nag moom def na musiba yi gën a garaaw ci musiba yi ca mooy waat fekk da ngay fen wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon ñu jël suñu bind bi ci topp mu ne wal kafaaratu lii di kafaara ngiñ nag itaamu ashrati masakin mooy nga leel fukki miskin min min al muslimin al ahrar ci jullit ña nga xam ne ay gor lañu muddan li kulli miskin bi muddi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ku ne nga jox ko muddu ci muddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy nattukaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne daanaka lii bar la rek bu teg tuuti wa ahabbu ilayna an law zaada ala al muddi la ñu gënaloon nag mooy mu dolli ca muddu ba ay ca liibar ba misla sulusi muddu lu toll ne ceeru muddu aw nisfi muddu wala boog mu dolli ca genn wàllu muddu wa zalika bi qadari ma yakunu loolee ci kemu la muy nekk min wasati ayshihim ca la gën a digg du dóomu ca la ñuy dunde fii ghala'in aw ruxsin ca kawe ba prix ba di kawe ca la ñuy dunde wala yomb ga nga xam ne dana ko yombe wa man axraja muddan ala kulli xaalin ajza'a waaye koo xam ne génne nga benn muddu ca kafaara ba ci lu mën a doon loolee doy na la wa in kasaahum bu dee da leen di wadd kasaahum li rajulin xamis day jox góor gu nekk benn xamis bu muy sol walil mar'a xamisun wa ximaar bu dee jigéena mu jox ko xamis te mooy robb rek bu ànd ak musóor aw itqu raqaba wala mu goreel benn jaam mu mu'mina boo xam ne jullit la fa in lam yajid su amul nag zalika ci loolu wala it'am ci amul lum léeg-léeg kon bu boobaa nag fal yasum salaasata ayyaam yutaabi'uhunna na woor ñetti fan yoo xam ne da koy tegale fa in farraqahunna ajza'a bu ko teqale it du te loolu doy na ko wa lahu an yukaffira qabla alxins bu ko neexee mën na def kaffaara avant muy jalgati lam waatoon ay def lam waatoon lam na woon du ma ko def wala mu bàyyi lam na woon dana ko def aw baadahu wala mu bàyyi ba ba def ko ba pare wa baadal xins gannaaw ba mu firee waatam ga nag ahabu ilayna loolu mooy la ñu gënal mi ngi noonu mbokk kon dañuy ñëw ci kafaara waa ji waxoon ne ne billahi nangam dinaa ko def mi ngi noonu salan sama jabar ji ah dinaa ko fase wala kër diw ah dinaa fa dem wala nangam loo xam daal nee na danaa ko def bim ne dinaa ko def mu dem nag ba mujj gis ne ñàkk koo def mooy la gën yonent bi alayhi salaam loolu la ñu doon wax képp ko waat ci mbir gannaaw ba mu gis leneen lu gën loolu na bàyyi lam waatoon ca def la gën su boobaa dafa am ñetti mbir yu ko suñu boroom yàlla jox choix ci mu tànn ca lu ko neex ba jëkk mooy mu jël fukki miskin ci ay julit maa ngi koy dolli ay gor donte ne ay jaam yu fi nekk xamatuñ ko ay gor ku nekk mu daal di lay jox mudd lan mooy mudd mooy la nga xamee ni nii moom la ñuy génneel kuy woor bay koor ga jeex li ñuy génneel nit ki mag ak ndaw mooy saa saa boobu mooy ñeenti mudd dégg ngeen borom xam-xam yi toujours du ci am ay divergence entre deux kilos ba ay deux kilos deux cent deux kilos trois cent almuhim mën nañu wax ne mudd bi daal mi ngi tourner autour de libre mooy genn wàllu kilo kon loolu ngay def ku ne nga jox ko genn wàllu kilo ca la ngay dundee ca la ñuy dundee ndakaar moom mooy ceeb ku ne nga jox ko genn wàllu kilo ceeb day wax nag ni la gënoon moo di ne ni su dee ne ceeb yomb na ku ne nga jox ko liibar ak genn wàll liibar wala boog nga jox ko liibar ak ceeru liibar lii lépp it day wane ne la ca gën suñ jamono yi tey jii sooy waatee bay def itam nga jël fukki miskin ku ne nga jox ko un kilo ceeb soo ko joxee un kilo ceeb loolu wàcc na la amaa nag léeg-léeg nga dégg ay nit nekk ci waxukaay yi di wax naan wax da nga ko war a jox lu mu ndékkee aña ca reera ca loolu mbokk ay wax rek la da ngay calculer prix ndékki bi prix añ bi prix reer bi loolu mbokk ay wax la lañ daan def jamono yonent bi jamono sahaaba yi mooy ni ñuy leelee ci korite noonu lañ daan defee kafaara waa ji reyoon nit ci tey ko it nañ ko non loolu amu ci waa waa ji dogoon weeru koor fekk ne alors dafa waroon a doon ay koy goreel ay jaam wala yu demee noonu it loolu lañ koy sant te mooy dund nga koy jox directement loolu la wax ci wàllu kafaara boobee da nga koy leel wala nga wodd ko wodd gi mooy ku ne nga jox ko lam mën a jullee fukki miskin yi ku ne nga jox ko lam mën a jullee bu dee góor a nga jox ko xamisa boo xam ne bu ko solee mën caa julli bu dee jigéen a nga jox ko robb ak musóor boo xam ne bu ko solee mën caa julli mi ngi noonu xam ngeen loolu moo gën a cher la nga xam ne mooy lele ji mu ñëw ci troisième bi mooy goreel jaam jaam it xam ngeen moo gën a cher ñett yi nag lu ko ci neex def moo tax suñu borom ne aw aw aw ñett yi lu ko ci neex def amma nag suñu borom subhanahu wa taala ca aaya ba ngay jàng suratul maida def ne koo xam ne nag amul amuloo leele amuloo wodde amuloo gore la jaam amuloo kon looy def wooral ñetti fan wooral ñetti fan waaye ki am amul droit woor amma boo amul nag waatoon nga ne danaa def nangam defoo ko waatoon nga ne duma def nangam def nga ko su boobaa wooral ñetti fan ñetti fan yooyu boo ko tegalee mooy la gën ndax lenn ci ay qiraa yi ñu jële ci ibnu mas'ud naan salaasata ayaamin mutataabi'aat doonte ne jumhurul ulama la ñu wax mooy ce choix la bu la neexee tegale ko bu la neexee teqale ko waaye daal waral ñetti fan koor googu it wala lele googu kañ la gënee man nga koo def avant ngay def mbir mi masalan jàppante nga ak sa mbokk julit nga ne billahi kër sañ caam dootuma fa teg sama tànk gaa yi ñëw yedd la déet sañ caam sa mbokk la nangam nangam nga war faa dem bu la neexee kafaara ba pare doog faa dem mu ne loolu lu ma ne nekk la waaye mu ne moom li ñoom li ñu gënal mooy dem fa ba pare nga xam ne kon la nga waatoon def nga ko nga doog a kafaara ci gannaaw ba la waaye ñaar yépp a mën a nekk moo mi ngi noonu loolu moo aju ci wàllu kafaara boobee kon ba ko kafaara foofu la jeexee bunt bi ci tege mooy buntu nazar su dee ne mbokk yi am nañ ci benn laaj buñ doon laaj bala ñoo tëj buntu kafaare bi ci lu aju ci liñ jàng liñ jot a jàng nii naam bismillah waaw waaleykum salaam mudd mooy kaaru sa mudd mooy kaaru sa saa nga diviser ko par quatre loolu muy mudd cosaanu mudd mi ngi jóge ci loxo dañuy jël góor goo xam ni ku digg doomu la mu jël ay loxoom du ko tàllal du ko lem nii def ko mu digg doomu nii ñu indi peppe mi wala ceeb bi sol ko ba mu fees dell mu daal di teg ñu solaat loolu mooy benn mudd buñ ko defee quatre fois muy benn saa loolu moo nekkoon cosaan bi heure boo nekkee foo xam ne amoo benn nattukaay nañ jël koo xam ne ku diggu doomu la ñu jël ay loxoom sarse ba mu fees suñu sottee rek loolu muy mudd naam ba muy quatre fois muy so naam naam naam ndax boo ne asafur la waaw loolu dana am ci waat boo xam ne nii da nga koo waat jàppoon ne la nga waat loolu lu am la fekk na amul ko mel noonu kafaara amu ca waaye war ngaa wax astafurla ci li nga wax waaye nag kafaara amu ca waaye bu dee da ngaa waat ci turu yàlla moom ne du ma def nangam wala dinaa def nangam su boobaa fokk da ngay kafaara beneen bi nga xam ne jàng nañ ko sànq mooy wóor ne la ba ngay waat da ngay fen ku bal noonu moom astaghfirullah ba dafa war a ànd ak tuub gu sell sa diggante ak sa borom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah naam bismillah naam naam waaw waat nga tey ne du ma def nangam def nga ko su boobaa dañ naan la utal fukki miskin nga jox leen lu ñu lekk wala nga woddu leen wala nga goreel jaam ñett yooyu moom bu la ci neex def su dee amoo nag nga war ñetti fan situation bi nga koy def mooy loolu mooy lépp loo ne woon danaa ko def nga waat ca ci turu yàlla wëlbati ko defoo ko lépp loo xam ne da nga ne du ma ko def waat ci turu yàlla wëlbati ko def ko su boobaa kafaar boobu day aju sa kaw ñett yële lu la ci neex tànn boo amul nag nga doog a war ñetti fan wallahu subhanahu wa taala alam waaw loolu mooy kafaara bi nga xamee ne nii da nga rey nit loolu moom beneen beneen beneen kaala la suñu borom subhanahu wa taala wala kafaara boo xam ne nii da nga wax ni sa jabar yemale naa la ak sama yaay su boobaa da ngay gis suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne da ngay goreel jaam borom bi ne fa man lam yajid ku amul doog a woor fa man lam yastati ku mënul doog a lele foofu moom da ngay dafa tegaloo ci man-man yi amma fii nag dafa tego dafa dafa yàlla da koo boole ci choix bi yow yaay tànn amma yële moom da ngay gis ne borom bi da koo tegale bala ngaa jóge ci bi ci kaw fokk da nga koy tëri doog a wàcc ci bi ci suuf na ngi noonu waaw kon ñu jël ci ñu jël ci nazar bi ah ah waaw bismillah naam tànk tànk wat amul déedéet tànk wat amul kafaara amu ci dinaa def nangam du ma def nangam loolu boo ko deful su boobaa wax nga lu amul waaye nag kafaara amu ci kafaara moom mi ngi nekk da ngaa indi turu yàlla ci loolu rek la ñuy kafaara boo waatee ci leneen lu dul yàlla kenn du ko kafaara bakkaar bu rëy nga def mais kenn du ko kafaara barka cheikh ak barka sëriñ ak barka asamaan ak barka suuf loolu du lu ñuy kafaara waaye nag def nga bakkaar bu rëy boo xam ne benn parti la ci parti shirk yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah waaw ki shahid képp ku shahid mi nga àjjana mais kan mooy ki shahid ki shahid loolu doomu aadama xamul li nga xam mooy ki dee fi sabilillah mais kan mooy shahid moo ko shahid yàlla moo ko xam looloo tax doomu aadama dañuy rafet njort ci moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana indi jaamam yowmal qiyaama sëñ diw maa la defaloon kattan kattan gi loo ci def mu ne jihaat naa ba dee fi sabilillah ñu ne ko waaw loo ci jiblu woon mu ne ngir kaddu yàlla jëm kaw yàllaa ki malaakam ne ko da ngay fen yaa ngi bëggoon ñépp na jàmbar nga jël leen yóbbu sawara looloo tax kenn du wax ne diw shahid na ma nga aljanna lu dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam amma keneen ku dul moom boo dee fi sabilillah dañuy refel njort ci moom mi ngi mel ne jigéen bi ëmb doon wasin dee kooku dafa shahid ki dee ca ndox ma dafa shahid ki dee ca lakk ga dafa shahid ki dee ci tremblement de terre dafa shahid mais day tax ñu ne mi ngi àddina déedéet dañ naan moom day shahid na waaye nag shahid ci suñu làmmiñ bokkul ak shahid ca yàlla yàlla nañu yàlla boole ci shuhada yi ca moom waaw kon ñu jël bind bu kii rek ci waaw dafa mel ne bilal yaa ngi nodd de waaw xal ñu ñu ñu ñu jël ki rek mu ne kon wa man nazara koo xam ne nag dafa nisër an yuti allah ci mu topp yàlla fal yutihu ngallawaay na topp yàlla wa man nazara an yasi allah ku nisër ci ne day mooy yàlla fala yasihi ngallawaay bu mooy yàlla wala shay'a alayhi doonte ne dara waru ko ci wa man nazara sadaqata maalin koo xam ne dafa nisoroon ne day génn saraxu alal gayrihi alal joo xam ne keneen na ko moom aw itqa abdi gayrihi wala goreel jaamu keneen ku dul moom lam yalzamuhu shay'un dara du ko war ci loolu wa man qaala képp koo xam ne dane in faaltu kaza fa alayya nazr su ma defee nangam day nisër dana ma war kaza wa kaza ci lenn ci lii li shay'in yazkuruhu ci mbir moo xam ne da koo tudd min fi'lil birr ci loo xam ne jëfi yiw la min salaatin loolee ci julli la aw sawmin wala loo xam ne ci koor la aw xajjin wala loo xam ne aj la aw umra wala umra aw sadaqati shay'in sammaahu wala boog saraxu leen lu mu tudd fa zalika yalzamuhu lu mel noonu day lënkoog moom in xanisa su dee su dee daa firi waatam boobee kama yalzamuhu law nazara mujarrada min gayri yamin comme nam kay wari bu doon te ne dafa nisër nisër kese bu mu àndul ak benn waat wa in lam yusammin li nazr li nazrihi bu dee ne it tuddalul lam nisëroon maxrajan benn génn waay min al amal ci jëf yim war a jëf fa alayhi kafaratu yamin dana ko war la nga xam ne mooy kafaaro ci kafaara yamin mi ngi noonu mbokk kon lii bind bi nga xam ne moom la ñu ciy teg mooy day wax wàllu nisër lan mooy nisër mooy nazr mooy da nga naan fas yéenaa yàlla day nisër naa ne dinaa def nangama ki nangama ki nangam danaa dem omra danaa rey xar sarxe ko dinaa def nangam loolu mooy nazr lu ci bëri dafay ànd ak char ay yàlla day soo wéralee sama feebar bi danaa def nangam danaa sarxe nangam sama doom ju réer ji day boo ko gindee danaa def nangam yàlla boo ma mayee jëkkër boo ma mayee soxna yàlla boo ma mayee liggéey danaa def nangam ci sama salaire loolu mbokk mooy nazar amma yéene bi nekk sa biir xol rek loolu du nazar loolu ay yéene la amul benn kafaara bu nekk ci loolu fokk nga wax ko mu doog a tudd nazar yonent bi alayhi salaam nag ne ku nisër ne danaa topp yàlla ngalla waay na topp yàlla ku nisër ak mooy yàlla ngalla waay bu mu mooy yàlla même boo ko waxee bu ko def mukk mi ngi noonu masalan tey ji boo ne woon nisëroon naa dem ziyaare ji xabru diw ca Tambacounda benn waay ne la ah déet bu dee xabru ba dong moo la yëkkati day yonente bi alayhi salaam nee woon na kenn du takk ay bagage am di tukki lu dul da nga jëm makka wala madina wala aqsa su boobaa kon xam nga ne léegi baaxul bàyyil nazar boobu mi ngi noonu loolee da ngay gis ne képp koo xam ne nii nee na nisër na ne day mooy yàlla na bàyyi mooy yàlla ga ci loolu dara du ko war ci loolu mu ne nag képp koo xam ne dafa nisër sarxe alalu keneen wala jaamu keneen kooku dara waru ko ci loolu ba tey mu ne képp koo xam ne nii nag moom daa nisër ak jaamu yàlla nisër ne yàlla danaa woor nangam danaa julli nangam danaa ak nangam loo xam ne da koo tudd digganteem ak boroomam ah su boobaa loolee da ko war a def mi ngi noonu yàlla fësante naa yow ci ne nangam danaa ko def loolee bu dee am na dafay war ci moom na doon waat na na doon waatul na doon waat na ca na doon waatu ca wax nañu sànq ci wàllu ngiñ moom waa ji bu dee wax na ay waxam rek te waatul dara waru ko amma kii nga xam ne dafa nizar ne yàlla day su nangam xewee danaa def nangam mu waat ca ak mu bañ caa waat yépp a bokk yem loolu mu nga xam ne moom la waxoon bu amee dafa war a def kafaara dafa war a def la nga xam mooy kafaara loolee kon bokk na ci it lu mu wax waa ji toogoon rek ne yàlla day nisër naa la ak jaamu yàlla doonte ne waxul jaamu yàlla ga mu ne su boobaa it da ngay gis ne ku mel noonu bu dee deful benn jaamu yàlla bu mu tuddalal yàlla dana def la nga xam ne mooy kafaara kon loolu mbokk dañ ko wax ngir nit ñi xa- am benn sens ci wàllu nazar bi incha allah buñ fi dajawaatee daañ ko gën a leeral bi iznillah kon incha allah ñu bàyyi bilal noddu di des ci waxtu wi ñu alhamdulilah xam naa lu jiitu rek dimanche bi di ñëw incha allah dars bi du mën a nekk ndax dafa am benn conférence bu imam Galajoka war a def fii ci jàkka ji mu aju ci naka la ñuy def ba suñu sëy yi ñu mën koo sàmm gannaaw ba am ca ngërëmal yàlla loolu moo tax ba ñu ngi ñaan mbokk yépp tàkkusaan ñu fexe ñaax njaboot gi ñu ñëw fekke ci loolu mi ngi noonu insha allah naam su dee ni waaw naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu waaw naam ala kulli xaal nazar lu ci bëri nit ñi dañ koy def ca ni yàlla su nangam xewee danaa def nangam waaye nit ki mën na def nazar fekk ne du ko def ci benn condition suñu boroom mi ngi ñuy wax yaayu maryaama ba mu ëmbee doomam da def ne rabbi inni nazartu lakka ma fi batni muharrara yàlla day wërsëgal nga ma ma ëmb sama ëmb bii la ma yéene dama ko yóbbu rek ca jàkka ja mu jàng diine di jàngale diine yàlla dogal muy jigéen kon doomu aadama mën ngaa taxaw ngiree yow bëgg li nga def li nga li bëgg jaamu yàlla gi wax ji nga wax ak sa boroom puusale ba nga bañ koo bàyyi nga ne yàlla day nisër naa ren moom danaa dem umra yàlla day nisër naa diw danaa ko defal nangam loolee suñu borom mu ne yuufuuna bi nazar yàlla dafa gërëm ñi matal nisar donte ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon tere tere boobu ixtilaaf am na ci parce que daana wax naan bàyyi leen nazar innama yustaxraju min al baxil alal la ju ñuy jëli ci ki nay te mooy yow mi bëgg a def lu baax jarul ngay nisar naan yàlla nangam lu baax la def ko rek am ñoo xam ne ñu ne kon la yonent bi tere woon mooy lu aju ci alal donte ne ne lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne jullit dafa war a moytu nazar lim def mooy bépp jaamu yàlla gu mu yëg na baax na mën na ko na ko jóg rek def bu ci boole di nisar wala ay condition yi muy teg almuhim daal nazar mën na ànd ak condition mën na ànd ak yow nga nisar rek ngir ah loolee nga wax puusale nga def mbir ma mi ngi noonu wala boo ko xisee ba nazar wareef lay doon ci yow heure boo xamee ni nii bàyyi nga ko da ngay def kafaara te bu dee ne tamit waroo foye la nga suñante ak sa borom loolee mi ngi noonu xanaa ngeen baal ma rek gars yi nettali ñu ne samba pël def ne soxna si ay kumba sa doom ji nga ëmb day su juddoo dama koy yóbbu rek mu jàng alquran di jàngale soxna si ne ko ah ma ko nijaay kuy sàmm nag yi mu ne ko nappi waay damay nag yàlla rek waaye ñu bëri it da ngay gis ne li ñu amagul moom amawuñ ko lu ne la mën nañ koo siyanteeg seen borom ah yàlla day gis bu ma may liggéey sama salaire weer wu dee danaa jël dixième ba sarxe ko nanga hee hee loolu la borom bi di wax wa minhum man ahada allah la in aataana min fadlihi lana saddaqanna wala nakunana min as-salihin suñu borom leen lu bëri samay jaam dañuy digganteeg man yàlla boo ma joxee say ngëneel danaa def lu baax danaa bokk ci baax falamma aatahum llah min fadli baxilu bihi ila axiri te mooy ba leen yàlla defee leen ñu fàtte loolu daal mbokk mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waa xins mooy la nga defoon nga génn ci al xins mooy génn ca la nga defoon mi ngi noonu su ko defee mooy waxoon nga ne du ma def naa nga nga wëlbati ko def ko loolu ko mooy xins mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah waaw ah ñàkk nazar mooy la gën mooy lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la boo naroon a def masalan tey yàlla sama li may di jënti su su sottee danaa def nangam xam nga lu gën defal nangam boobu ñaan yàlla yaa ngi loolu moo gën moo gën a gaaw yaa ngi dégg sama feebar bi su ma wéree naa def nangam defal nangam boobu ñaan yàlla mu wéral la loolu mooy la gën su ko defee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xawal kon mbokk ñu doy loo loolu mbokk ah ah sëñ bi question yi ku ne deux la am de waaye waaw kon ñu mujj ci yow rek waa bismillah waaw waaw waaw bismillah waaw waaw ña- ñàkk a dal ak imaam al ala kulli xaal julli moom bu la wóoree ne yaag imaam seeni loxo daje nañu bokk nga ci rakk boobu firiwul nag ne bu imaam siggee da ngay siggi déedéet mooy imaam sigg na dafa lu lu mu néew néew ñetti subhaana rabbil azim doog a siggi fekk imaam mais daal bu la leeree na yow bi ngay teg say loxo fekk na loxoy imaam mi ngi tege bokk ngeen même bu doon benn seconde du ngeen tegandoo ko ay loxo dañ naan rakka bi moom fekk ngeen ko mi ngi noonu mbokk jullit comme ñu ngi woon ci nazar ak yamin te ñu ngi ci julli kon nañ jóg julli bokk incha allah